di nuyu mbokk yi nekk ci tiktok bi ak ci ak ci facebook bi yëpp c'est bon yéen a gis écran bi wala na am ko def signe s'il vous plaît. salaamaaleykum yaa Seydi ñu ngi gis écran bi. d'accord merci bien alors dañuy commencer tey ci règle numéro 6 semaine passée jàngoon nañu règle règle numéro 5 bi donc tey dañuy jël règle numéro 6 règle bi li mu wax mooy. آه، لا يجزئ التعديل من غير تعيين المعدل مانام تعديل دو دو دو دو دو فالابل لا يجزئ في دو فالابل غوكاي مانا فيري تعديل نيت كي دو فالابل بو فكيني كي ني تعديل سبيسيفيي وين كو نومي وين كو كيسكو سلا فو دير خمغن تي جرح ak taadil ci xeet la ci xam-xamu xadis dafa am ñaari pàcc mooy jam nit ki ak son contraire mooy seetal ko maanaam témoignage à charge wala témoignage à décharge charge nit ki wala déchargé ko bu fekkee nit ku ñu charger la négativement ñu ne kooku kenn du jël xadisam bu fekkee ku ñu décharger la positivement ñu ne kooku mënees nañu jël xadisam léegi nag euh, bu fekkee ne ki ñuy chargé ak ki ñuy déchargé yépp dafa am loo xamante ne ni dafa war mooy il faut ñu nommer leen mooy taayin il faut ñu xam ki ñuy chargé kan la ki ñuy déchargé kan la c'est-à-dire man du ma ñëw rek ne euh, benn siqa nettali na ma te waxuma siqa boobu kan la donc il faut que ma ko exactement ñu mën a xam kan laa ci jublu moo tax mu ne taadil nit sans pour autant le nommer loolu bu ñu ko considérer alors xatibul Baghdadi wax na euh, mu ne ida qaala la aalimu kullu man rawaytu anhu fa huwa siqatun wa in lam usammihi képp koo xamante ne nii riwaaye naa ci moom kooku siqa la donte tudduma turam summa rawaa am man am man lam yusammi ba pare mu riwaaya ci kenn koo xamante لم يسميه تدلكو فإنه يكون مزكيا له maanaam kooku dañuy considéré ne selon moom waa ji wax loolu dafa setal kooku غير أننا لا نعمل على تزكيته لجواز أن نعرفه ولا أن نعرفه إذا ذكره بخلاف العدالة خطيب البغدادي مني سبرم خم خم نيوه نيلا man képp ku may ci moom ku la donc au préalable moom tegal na boppam benn règle ne képp ku muy jëlee ci moom ku wóor la léegi ñu fekk ko moom un jour mu ne na ci waay kan la Kim jëlee la li ñuy considérer mooy waajooju ku selon moi sauf que nak lolou ñun duñu ñu engagé duñ ko jëfé parce que amana, su ko tuddoon su tuddoon turam ñun danañ xam ci xalam lo xamanteni ne ni lu bokkut ak kóolute googu la maanaam fiabilité boobu wala honorabilité boobu moom mu koy jox la comprendre nga tey jii benn journaliste par exemple su ñëwee ne la man sama source lépp ay sources yu la information de un bon jour même journaliste boobu ñëw indil la information boo xamante la source bi tuddalu la source mais daf rek la ci source nee na source selon journaliste mais nag engagé ñun ñi nga information parce que amaana suñu tuddaloon turu source on aurait su wala on aurait découvert ci xaalam loo xamante ne bokkut ak sûreté boobu noonu ak fiabilité boobu mu ñu doon wax moo tax ñu ne la certifier nit sans pour autant ñi ñu mentionné wala ñu nommé ki ñu certifier loolu du engagé ñëpp دود راجل بو خامتاني لو بيجي فيلا لا يجزي التعديل من غير تعيين المعدل الو شرح قاعده بي من قاعده بي عندنا اتي تي حكم تعديل على الابهام مانام تعديل نتكي تي ابهام خم ابهام مويلان خم تعديل مويلان دونك جابل ما تي ما تي اتار suuf ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci Facebook beeg ñoom Omar Thiam ak ñoom kii ñoom Baye Anne ñoom xamuñu ko parce que xëy na jàngisi wuñ donc bis bu ñu jàngisee danañ ko xam waaye yéen soxla wu leen may attardé wu ci termi terminologie yi ni ay ta'dil wala ibham donc mu ne wa annahu la yujziu li jawaazi an yakuna rawi inda haadihi al alim wala inda hadha al alim siqa manam amana rawi bi mom selon borom xam-xam bobu mom siqa la fa mom وعند غيره مجروحا ثقة عند هذا العالم وعند غيره مجروحا donc amaana yow wóor na pour yow mais man ce n'est pas quelqu'un de fiable pour moi dañ koy gis souvent surtout ci suñu jamono ji nga xamante ne information yi dafay ça ça court de de partout léeg-léeg nga dégg benn waay boo xamante ne ni information bu mu joxee nit ñi ne wóolu nañ ko parce que diw moo ko joxee mais xëy na yow ni nga ko wóoloo noonu keneen moom wóoluwu ko keneen wóoluwul ko peut-être euh, information euh, jarul dara ci moom loolu ci suñ jamono ji dañ koy gis lu baree bare am na ay site wala ay compte wala ay euh, chaîne YouTube yoo xamante ne ni bépp information buñ joxe selon seen partisans yi ñoom information boobu lu wóor la mais li mu nekkee lu wóor pour yow noonu la bañ a nekkee lu wóor pour keneen moo tax da ngay may keneen ki droit yi tamit li nga considérer que lu wóor moom mu bañ koo considérer et entre parenthèses ça nous permet ñu def petite digression ci tey jii ngay gis nit ku ñëw ne la man sama sëriñ moom mooy xalifa yàlla sama sëriñ moom mooy naanuwaayu jaam yi maanaam ku jàppul ci sama sëriñ du xam dara ci yàlla ku jàppul ci sama sëriñ du yegg ci yàlla ainsi de suite mais yow ni nga jàppee ne sa sëriñ moom mooy siqa amma moom mooy nangam mais dara ca keneen ki nga ne moom donc euh, sa wax yi ngay wax du engagé kooku nous ko engagé dès lors que dès lors que te lii lu am solo la dès lors que amuñu ben texte bu jugee ci yalla ñew nas ce serigne bobu non ne mom moy khalifa comme niñ amé texte bu jugee ci yalla nas yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ne mom moy dernier yonentu yi wama ma illa illaa kaafatan linnaasi bashiran wa nazira dès lors que amuñu texte bu ñew nas ci ce serigne ne moom mooy amuñu hadith bu ñëw nas sa sëriñ ne moom mooy xalifaam donc mbir mi yëpp problème de considération la et sa considération la yelzimu ahadan maanaam du takkee kenn du du obli du du obligatoire sur qui que ce soit kum neex mu gëm kum neex mu weddi maanaam tey jii tey jii benn nit bu taxawoon ne man weddi naa sëriñ yi nekk dëkk sàngam yépp dëkk sàngam laa wax sëriñ ñi fa nekk yi weddi dinaa leen yow amoo droit nga ne kooku yéeféer la wala kooku dog na ci yàlla parce que lu la xamal peut-être moom ki mu jàpp moom moo gën a jokk ci yàlla comment donc léegi-léegi tamit mbokk yi foo ñuy bàyyi xel yenn affaire yi da ngay gis ñoo xamante ne dañuy exagérer dañuy jël seen benn sëriñ benn bàyyi aan def ko mu nekk xalifa yàlla ci mujj ak jamono wala xutbu zamaanu mu ak jamono ba pare bëgg ci ilzam doomi adama yépp ne képp ku naaneewul ci moom xamul dara wala képp ku jàppul ci moom du yegg ci yàlla wala képp koo xamante ne xamu ko ci mujj ci ci jamonoom kooku dog na ca yàlla wala nangam c'est des exagérations et des aberrations yoo xamante ne doomi adama bu am xel warul di ko wax voilà donc li jawaazi an yakuna raawi inda haza alaalim siqatan wa inda gayrihi majruhan bi anwaain min aljarxi xëy na raawi bi nga xamante ne nii buxaari day riwaaye ci moom par exemple mais boo demee ci muslim wala ci ahmad kooku tekkiwul dara fa moom et on le voit souvent da ngay gis raawi yoo xamante ne muslim day riwaaye ci ñoom mais buxaari du riwaaye ci ñoom souvent tu vois l'inverse c'est-à-dire am na benn raawi bu tudd Hamad ibnu Salama muslim dafay riwaaye ci moom mais buxaari du riwaaye ci moom te façon yu mel noonu on en a à on en a on en a à gogo ci liste bu bare bare ki raawi bi euh, boroom xam-xam bi day riwaaye ci moom raawi bi boroom xam-xam bi du riwaaye ci moom. وليس هذا معناه عدم الاحتجاج بتزكية المعدل بل يعمل بتزكية المعدل ولا شك إذا عرف عين الراوي وإنما المقصود أن التوقف فيه أولى لعدم الوقوف على عينه ليعرف حاله ما li ñu wax nii nag mu بروم tegtalewul ne boroom xam-xam boobu tazkiya تزكيه noonu maanaam tazkiya موي تعديل borom xam-xam boobu tëskiye waa jooju noonu du ñu jëfee waxam ah kay danañ ko jëfee waaye li liñ ci jublu rek mooy ku nekk am na droit mu taxawandi ci mu am ci tawax su ko neexee surtout bu fekkee xamul kooku kan la maanaam tey jii man dama laa indil benn xadis xadis bi lu mu wax nee na yonentu bi nee na kuntu kanzan lam oraf nekkoon naa benn trésor boo xamante ne kenn xamul woon xadis bi da ngay dégg ñoom Omar Thiam ak Soufiane yu bëri dañ koy waxtaanee ci seen gàmmu yeeg seen conférence yi nekkoon naa benn trésor boo xamante ne kenn xamuma woon bi ma bëggee ñu xam ma ma bind benn mbindeef ci moom lañ may xamee yow xadis boobu pour yow Soufiane bi xadis bi wér na di lekk amaloo ko chaîne de transmission mais. noonu nga war a mayee salafiste bi wala keneen ki nga xamante ne moom gëmul loolu mu ne xadis bi wérul pour moom parce que aslan xamul kan moo riwaaya xadis bi donc laa yorof majhu xadis bi amul isnaat donc da nga koy maye da nga koy maye droit boobu lan mooy lan mooy objectif bi ci lii mooy am pondération ak modération ci ni ngay considérer les choses léeg-léeg ngay gis benn waay boo xamante ne ni il suffit que yow nga weddi benn xadis pour moom yow génn nga ci lislaam ba taatan wala il suffit que nga weddi benn waxu sëriñam wala benn waxu muqaddamam wala benn waxu cheikham pour moom yow génn nga ci lislaam ba taatan safara moo lay xaar mais boo xamee façon règle yu mel nii ça te permet nga am un peu de un peu de mesure ak euh, recul même bu fekkee na même bu fekkee ne di nga gëm di nga gëm li nga gëm voilà am nga droit gëm li nga gëm comme ni keneen amee droit gëm li mu gëm wa misaalu zalik misaalu misaalu façon bu mel noonu mooy qawlu shafii imaamu shafii par exemple bon imaamu shafii ci école ahlu sunna wal jamaa ñëpp xam nañ ko kenn dootu ko présenté mooy kan imaamu shafii par exemple dafay ñëw ne la axbarana as-siqatu maanaam ku wóor ki wax na ma kooku jëlee na ci ku tudd saalix mawla mawla taw am mu ngi mel ni tey jii man ma ñëw rek ne la ah ku wóor ki nettali na ma nee na jëlee na ci Baye Niass par exemple mais ku wóor kooku kan la amaana ku wóor ki dafa wóor ba mel ni Cheikh Mahi Cissé par exemple wala dafa wóor ba mel ni Imam Hassan wala dafa wóor ba mel ni Mawlana Cheikh Ibrahim Saleh mais amaana tamit ku wóor kooku benn waaye la boo xamante ne su ma la tuddaloon turam maanaam waxuma la jël xam-xam ci moom waaye wax waxu tey suba sax doo ko jël ci moom. d'où l'importance ñuy nommer fi ñuy jëlee tuddal sa source mooy fan li nga wax nii fan nga ko jëlee il faut nit ñi ci benn emballage que ne waaw lii lu wóor la lii lu wér euh, gëmmu leen ngeen jël ko ngeen gëmee noonu donc wax ji imaamu Shafii wax nii na asiqatu loolu taadil mubham la manam ki mu jele ci mom daf ko ta'dil waye bil ibham donc amna ño xamantene pour ñom waxu shafii bi ça compte pas parce que il faut ñu xam si xabu bu kan la ndax amana ko shafii tuddoon ñom ñi am ay considération ci mom yu bokku ak yi shafii am ci mom j'espère que yéen ngi comprendre li ma li ma bëgg wax benen bi moy wa qala ba'du ahli al-ma'rifati bil hadith huwa ibrahim ibn abi yahya manam ya sayyidi naam On a là, juste Ben question. Allez-y. Euh, Qu'est-ce qui peut pousser Ben Imam Hadith, hadith comme chef Bon, si on peut appeler ça Nubusous, qu'est-ce qui peut. Ou même Zuhri, Defa fois, qu'est-ce qui peut pousser un imam bo xamné amna hadith dina bu c'est une question très importante ndax lolou tamit tadlis lañ koy woyé en fait ndax tamit ndax lolou dañ koy woyé tadlis mën nañ tadlis c'est une question très importante lu tax nit ki d'abord abord di nëbb D'abord, raison yi mën naa diverses et variées bi ci njëkk mooy peut-être peut-être dafa am ayib bu nekk maanaam dafa am défaut bu nekk ci source boobu te bëgg na avaler loo nit ñi wax jooju noonu te xam na ni bu tuddee source bi nit ñi duñ avaler wax jooju noonu donc dafay nëbb source bi ñëw wax wax ji comme exemple du ma tudd tur waaye yow xam nga ki ma bëgg a wax te yéen ñi nekk ci euh, daara ji fii xam ngeen ko xadis boobu waa ji waxoon ne. yonentu bi nee na képp ku xëy ci weeru koor ànd ak jana ba dangay dog bis boobu noonu xadis bi mu ngi ci saxiixu muslim bi ñu demee ërtal ko mu daal di ne axbaranihi muxbirun man dafa am benn waaye ko nettali woon rek te bi muy wax au premier plan daf ne yonentu bi moo ne donc gis ngeen ne nëbboon na source bi ne yonentu bi moo ne askan yonentu bi wax ji automatiquement mais bi ñu demee ba mettre ko en difficulté mu daal di dégager responsabilité donc loolu mën na nekk première raison nit ki dina bu suuf sam pour un défaut bu nekk ci source bi nga xam ne su ko révélé euh, wax ji kenn dootu ko jël ñaareel bi tamit raison bi mën na nekk nit ki dafa bëgg a protéger euh, source bi parce que bu ko révélé mën nañu lor source bi parce que wax ji dangerosité bi mu nekk wala sensibilité bi mu am sensibilité bi wax ji am nga xam ne bu révélé source bi mën nañ ko lor ci loolu حسن البصري بار اكزامبل دا ngay دغ مونيلا لپ لو دغ مونيلا يونت بي نينا فانا علي بن ابي طالب الا انني في زمان لا استطيع ذكر اسمي مانام داما نيكي جامونو جو خمانتيني مونو ما تودو تورم دونك بو دغ مونيلا يونت بي نينا غا خمال نتي علي لا كو جيلي ا نيتل بي بوكو نتي موي تدليس كوم لي وخني سي دادير خينا واحد جي امول بن سورس واجي موم مو انفانتي واحد جي waaye il faut mu nëbb nit ñi que ne moom moo inventé wax ji mu daal di ko jël askan ko kenn pour doxale digganteem ak échelon supérieur bi pour ñu bañ a wax ni wax ji am inqita par exemple man mi euh, su ma ñëwoon tey bëgg a jëlee wax ci Baye Niass aouzu billahi mina shaytan rajim yàlla bu ma def loolu waaye su ma bëggoon na inventel Baye Niass benn wax bu mu waxul te ma xam ne su ma ne Baye Niass wax na dina am ñoo xamante ne ils sont sceptiques ci loolu fan laa gisee Baye fan laa fekkee Baye ba may wax donc dama naan Cheikh Mahi nee na ma wala Imam Hassan nee na ma ma xam ne ñooñu sama diggante ak ñoom su ma doxalee wax ji da chaîne bi dina continue donc ma ne Imam Hassan nee ma bàyyi nee na ñu ne ah comme gisante na ak Imam Hassan te jamtal na ne jëlee na ci moom donc bàyyi mën naa wax wax ji ainsi de suite wala ma ñëw rek ne benn waay nee na ma parce que su ma tuddee tur imam bi foofu Imam Hassan boobaa mën nañu remonter les choses def les enquêtes donc damay ñëw rek ne axbarana siqatu ku ma wóolu wax na ma nee na bàyyi nee loolu mooy ñetteeli raison bi euh, yaakaar naa ne nag li muy gën a niru mooy tadlis tadlis lay gën a niru généralement ñi nga xamante ne dañ koy def pour deux premières raisons yi ma évoqué ne la mooy protéger source bi wala euh, nëbbu benn défaut ci source bi souvent boo toppee yoonu xadis bi da ngay xam li waral wax ji wala ñoom danañ ko expliciter autrefois maanaam ci beneen place danañ ko expliciter ne lii moo tax mais généralement yu mel nii euh, c'est est très compliqué et c'est très très difficile à débusquer comme ni nga waxee Zuhri daf koy def ñeneen ak ñeneen dañ koy def Abu Hurayra daf koy def lu bëree bëri euh, ak euh, ba ci Buxaari daf koy def ba ci Buxaari daf koy def def na ko ci Ibrahim Ibnu Tahman ak yeneen ak yeneen yu dul yooyu donc da ngay da ngay bàyyi ginaar ci biiru dunqam rek yenn day nekk wërsëgu jàngkat par exemple. Euh, J'espère que j'ai bien répondu, Saïdi. Effectivement, effectivement. Ok, merci. Euh, par exemple, jamono bi ñu commencé sosol yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay wax te dinañ ko gis ci chapitre bi di ñëw nañ continuer xaala baadu ahlil maarifati bil Hadith, huwa ibrahim ibnu abi Yahya. maanaam am na ñu wax ne shafii ki mu nëbbu fii mooy ibrahim ibnu abi Yahya. qultu إبراهيم ابن أبي يحيى هو ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي وهو وثقه الشافعي وكذبه ووهاه جماعة من أهل العلم ما نام شافعي نمكو توثيقه نون لا أمي أي برام خم خمي بري يوخم ندن كوكو فين كتلوان فين لون نكو دونك جيس نغني سيتي سيتي سيتي une personne euh, une personne cluvante bo xamantene ni ñi ñi dëppoo wuñ ci ay mbiram léegi yi pour def tadlis wala pour nëbb ayib gi nekk ci waajooju noonu mu ñëw rek ne xaddasana asiqatu donc il fallait def benn genre débunkage pour ñu mën a débusquer ne Ibrahim ibn Abi Yahya qu'il s'agit <coughs> donc yu mel nii malheureusement naam bismillah euh, Ibrahim ibn Abi Yahya mooy buñ jàngoon ci ñu bind Muwatta waaw te ñu jam parce que un qadari. voilà moom la moom la donc da ngay gis ne souvent euh, boroom xam-xam yu bari malheureusement dañuy def façon jëf ju mel nii ñëw rek ne la ku ma wóolu wax na ma wala koo xamante ne tuumaalu ma ko wax na ma wala koo xamante ne aw ma sikk sàkk ci ay mbiram wax na ma mais il fallait le nommer parce que ki nga amul sikk sàkk xëy na keneen am na ci moom sikk sàkk wala keneen xam na ci moom information boo xamante ne soo ko tuddoon mu génnee information boobu voilà. loolu mooy pour règle numéro 6 règle numéro 7 bii c'est important c'est extrêmement important règle bi lu mu wax mu ne adamu qabuli kalaami l aqraani baadihim an baad wala baadihim fi baad maanaam bañ a jël waxu ay maas buñ à waxee ay masse mooy ñoo xamante ne c'est des ay génération lañ quoi ñoo tolloo ci âge wala ñoo tolloo ci kii wala ay fekkante lañ ci génération bu kenn ci ñoom waxee ci keneen <clears throat> c'est-à-dire tey ji ku bëgg inscrire nu muy def sëñ Ibra Fati joxe woon numéro bi semaine passée donc je vais vous le donner encore mën ngeen ma envoyer message ci WhatsApp après dinaa leen wax inscription ak modalité le numéro c'est 77 104 14 10. 77 104 14 10 من ينجي انواي ميساج ابري دنا ان شاء الله دونك ا ني اي نيت بو فكي اي ماس لا اي جينيراسيون لا نيو كين كي تي نيوم سو وخه تي مورومم وري سوكا جيل ابن عبد البري واخنا تي تيريم بي تدو جامع بيان العلم وفضله تي فوليوم 2 تي باج 152 من الصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في علمه وثبتت في العلم أمانته وبانت ثقته وعنايته بالعلم لم لم يلتفت فيه إلى قول أحد كيف كو خمانتاني خم خم مورنا سخنا بابار إتمت فيابيليتيم أك أونورابيليتيم آه، سي ديجا بروفي بابار خمي نانكو ساكو خم خم أك توب تو خم خم موني كوكو ku mënti wax ci moom duñu gestu ay waxam duñu faale ay waxam illa an yaati fi jarxatihi bi bayinatin maanaam sof bu fekkee dafa indi ay argument yu leer je sais pas pour vous mais pour man c'est li mu wax ni c'est très c'est très c'est en fait c'est-à-dire nit ki buñ ko xasee sanctifié képp ku mën a waxati ci moom quel que soit argument bu mu joxe kenn du faale waxam jooju noonu est-ce que ça ouvre pas benn benn brèche wala benn porte boo xamante ni day tax groupuscule de personnes bu nekk mën nañu jël kenn ku leen neex ñu sanctifier ko et que cette personne devient intouchable incriticable bon <coughs> ku nekk mën na ci xalaat. ما جابنا أن أنزل لذات القول لا ورد لا للقائل فالحق مقبول ولو من جاهل دونك موني كيب كو خامتيني يي ساخنا سي موم كيب كو مانا واخ سي موم دون فالي واخام جي سوف بو فكيه دا فا اندي دليل بو ويرو وير بو اندك اي تيمونياج بو خامتيني ني موم موي تاخ ني مانا جيستو خام جوجو نونو ba pare mu nekk ay témoignages souvent sax wal mu aayana maanaam ñoo xamante ne dañoo gis ay témoins oculaires yu fekkee luñ koy tuumaal wala lu ñuy wax ci moom <clears throat> loolu la Ibn Abdul Bari wax donc sous-entendu que même boo bokkee ak nit ki jamono nekk ak moom maas nga xam ci moom dara boo ko waxee deeloo ko nit kooku xam nañ ci moom mbaax wala xam nañ ci moom xam-xam wala xam nañ ci moom jub kenn du faale sa wax jooju yow alors moom Ibnu Abdul Bari mu ko ne di wax ba léegi ci page 155 ci volume 2 ba léegi mu ne قد كان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلة العلماء عند الغضب كلام هو أكثر من هذا maanaam léeg-léeg nga fekk diggante saxaaba yi ak diggante borom xam-xam yu mag moment de colère bu ñu nekké ci moment de colère léeg-léeg mu am ay wax yu ñagas yoo xamante ne mooy gën a teeng ay genre waxu jarxu yi seen diggante mu ne walakin ahlul fahmi wal ilmi wal mayzi la yaltafituna ila zalika li annahum bashar borom xam-xam yi nga xamante ne ñoom ñoo am dégg am seetlu am seetantal am ràññee bu ñuy gestu wax yooyu noonu ndax lan ndax dañu considéré ne sahaba yooyu noonu ak borom xam-xam yooyu di mer bay wax yenn affaire yi ay doomi aadama lañu يغضبون ويرضون مانام داني مير دي كونتان والقول في الرضا غير القول في الغضب تا واخ تي مير واخ ان ايتان دو كولير بوكو تاك واخ ان ايتان ان ايتان دو كي دابيزمان اي دو سولاجمان ستادير لم بغا واخ موي بروم خام خام يي ak bir sa bay digënté sahaba yi di nga fekk ñoo xamante ne en état de colère daan nañu waxante seen diggante loo xamante ne lu ñagas la waaye borom xam-xam yi ñëw ci ginnaaw gi ñoom du ñuy gestu façon wax yooyu noonu maanaam duñ ko jël en considération ndax xam nañ ne ñooñu ay nit kese lañu dañuy mer dañuy kontaan te ku wax ci biir mer bokkut ak kuy wax ci moment bi mu kontaane man souvent yenn règle yu mel quand je les lis ça me tourne la tête sincèrement xaw ndax pour yéen mais man ça me tourne la tête parce que da nga koy gis ni mu nekk lu banal nga xam nga jàpp ne da nga koy gis rek romb mais c'est extrêmement gravissime vous savez vous savez pourquoi et comment ku xam ku xam pourquoi et comment rek na ubbi micro ci yéen s'il vous plaît maanaam paragraphe bii nii nga gis ko nii c'est très simple comme ça wax ko nii jàll mais c'est d'une gravité extrême لمن موسى مامادو ما املاي كوخم ياسر مو كم باراغراف دي جيم باراتي موني قد كان بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دان نيك سي ديغنتي صحابه يونت بي صلى الله عليه وسلم وجلت العلماء اك مbolo yu mag ci borom عند الغضب ام ان état de كلام هو اكثر من هذا مانام اي واخ يو نياغاس يو خامتاني مو اوب واخ يي نيو جالون سانك سي باراغراف بي سي كاو كوم اي واخو جارح اك يوي مانام واخ يو غنا نياغاس واخو جارح دا دان ام سين ديغنت مون ولكن وا سوف كو اهل الفهم بروم ديغ ديغ يي اك بروم خام خام يي لا يلتفتون الى ذلك دو نيو كونسيدير واخ يي نياغاس يوي دان ام سين ديغنت ناخ لانهم بشر ناخ دنج لين دي جابيكم اي دومي ادمه دانيي مير دي كونتان te kuy wax ci biir mer ci état de colère bokkut ak kuy wax ci moment boo xamante ne non colère la li mooy chapitre bi gis ngeen ko ni mu simple nii vous l'entendez comme ça nga xam ne boo ko doon lire tey jii ci xëy na ci Google wala ci benn téere da nga koy lire ni rek jàll mais bu sa bët yi amul tusngal doo comprendre li mu wax ci dangerosité bi ci nekk dites-moi lan ngeen ci est-ce que xam ngeen danger bi ci nekk ak wax ji gravité bi ci nekk je vous écoute Eh, ya seri seeti xam nga au début dañoo jàngoon par exemple benn règle. ci saxaaba. en fait ne ñoom kenn mbiru xadis maanaam kenn du leen jam lépp lu ñu wax dañ koy accepté parce que ku loo moo dul. léegi fii mu ñëw wax la ne ñoom dañuy mën nañ jëf-jëfu nit c'est-à-dire donc ils sont susceptibles je sais pas waxal nit ki lu amul wala bon man sama xalaat quoi benn saxaaba il est comme contrairement li ñu waxoon ci règle il est je sais pas def en tout cas lu dul noonu. Mhm. te su dee les secteurs def lu dul noonu te kenn du càmbar mbiram ça veut dire que peut être mën nga utiliser waxam wala jëfam yoo xam ne ah ça devait pas être le cas en fait man noonu laa ko jàppee. macha allah jazakumullah xayran keneen kan mooy ubbi micro. allez-y n'ayez pas bu leen bu leen ragal wax leen li ngeen li ngeen comprendre dañuy dañuy jàng allez Lamine Mamadou Aliou Mamadou Sarr Matt on dirait que vous êtes un peu timide là bon on continue euh, Seydi li nga wax li nga wax noonu benn la ci benn la ci mais dangerosité bi nekk ci wax ji et là c'est là où c'est important souvent ma koy wax mbokk yi ngir yàlla bu leen jàpp ne su ma koy wax dama koy wax pour euh, tooñ leen wala. jàngee jàngal sa bopp ci yenn xeetu xam-xam yi wóorul surtout ay jàngee ci Google wala jàngee ci internet bi wóorul ndax da ngay dajeeg yoo xamante ne nii yu jara taxaw seetlu la mais puisque amoo kuy téye sa loxo wan la ce qui est entre da ngay romb rek dem. alors première bi Seydi Moussa li nga wax noonu la benn la ci waaye ñaareel bi mooy xam nga. buñ ne nit ki boroom xam-xam bu mag la rawatina ñu ne yegg na sax ci darajaay nekk saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam suñu perception mooy kooku ci moom la nite ak jukko ju rafet mën a yem léegi bu fekkee ne bu demee ba mer dana wax dana wax moromam loo xamante ne waru kaa wax mooy ne kooku même si il est susceptible de perdre son contrôle bay dérailler di déraper y de deux choses l'une dérapage boobu noonu soit li mu wax la soit li mu wax du moment bi mu ak wax ma branché moment bi mu meree ba wax li wax soit li wax noonu fii xaalatil xadab soit soit c'est pas vrai si c'est vrai même bu fekkee ci xaalu mer la ko wax dañ ko war a jël waxuma la xaalu mer mais même bu fekkee ci xaalu xëm la ko wax wala xaalu ivresse dañ ko war a jël bu fekkee dëgg la mu ngi mel ni tey jii ma ñëw fekk nit ku tudd euh, Ablaye ma mer ne ko yow Ablaye nga tudd ndax dañuy wax ne duñ ko jàpp ne Ablaye la tudd parce que ci xaalu mer laa ko waxee non bu fekkee dëgg la ne Ablaye la tudd même bu fekkee ci xaalu colère extrême laa ko waxee dañ ko war a jël mais bu fekkee du dëgg bu fekkee du dëgg mooy ne doomi aadamaa ngi nii boo xamante ne susceptible am nañ perception ci moom que ne ku sell la ku rafet jikko la mais bu meree il est capable sosal moroomi doomi aadamaa kooku ndax fiabilité bi ñu ko war a jox ak considération bi ñu ko war a jox mérité na ko kon vous comprenez un peu donc bu fekkee ne wax ji dëgg la baat bi mu wax ne laa yaltafituuna ila zalika amu fa place maanaam yajibu an yultafat ila zalik bu fekkee li mu wax dëgg la indal al xadab maanaam tey jii bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nit ñëw merloo ko mu mer wax dara te yonent bi ñun ñu gëm ne du wax lu dul dëgg mais li mu wax noonu dañ koy gëm ci waa ji même bu fekkee ci xaalu mer la ko wax par exemple nit ñëw kontaan loo ko mu kontaan wax dara te ñun ñu jàpp ne yonent bi du saalit bay wax lu mat a wax dañuy jàpp ne li mu wax dëgg la même bu fekkee ci xaalu mbégte la ko wax mais bu fekkee nit ki il est capable de varier su meree ak su kontaanee kon mën nañu jàpp ne su kontaanee ba ëpp mën na sosal nit inventé xadis bu neex nit su meree ba ëpp mën na bon su su kontaanee ba mën na sosal nit inventé bu ko neex wala mu mu taadil wala mu tawsiix koo xamante ne waru ko woon a tawsiix waru ko woon a taadil mu tagg koo xamante ne waru ko woon tagg naka noonu su meree itam mën na jarxu koo xamante ne waru ko woon a jarxu doomi aadama bu baax jullit bu normal bu meree ak bu kontaanee amul warta am écart de langage xam nañu nag nit ki mën na am sab lisaan loolu mën naa nekk mais yenn écart de langage yi dafa war a takkal làmmiñam bi laxab contrôler def def frein ci làmmiñam moo tax nga gis moo tax nga gis waa ji bi mu ñëwee laaj yonent bi yaakaar naa Seydina Abdullah ibn bi la bi mu ñëwee laaj yonent bi ne ko waa si dañ may tere pour may bind lu may jëlee ci yow li may déggee ci yow yonent bi ne ko bindal fa innahu laa yaxruju min fii illa xaqun dara du génn ci sama làmmiñ lu dul dëgg moo xam ma mer moo xam ma kontaan dara du génn ci sama làmmiñ lu dul dëgg du mer ba wax lu ma war wax du ma kontaan ba jéggi daayoo wax lu ma war tamit

am na ñu bëri ñoo xam ne jàpp nañ leen tilimal nañ seen der jeté nañ leen en pâture te fekk juste dañoo riwaaye lu neexul ñële vous voyez un peu lii en plus de ci li Seydi wax sànq mën nañ ko ci boole moom tamit <coughs> donc booy jàng il faut ngay bàyyi xel yii nii yëpp. foog ngay jël probabilité yi yëpp ak hypothèse yi xëy na peut-être lii peut-être lii peut-être bu ñuy charx qaida bi nag dañuy wax ne tatanaawalu hadihi al qaida xukmu kalaami al aqraani baadihim fi baad maanaam qaida bi li muy wax mooy règle bi li muy jàngale mooy wax diggante ay maas bu ci amee ñoo xam ne ñoo bokk génération man par exemple man aouzu billahi min kalimati ana mais ab salafiste lu ma ko mere mere mere mere du ma ko sosal lu mu deful wala lu mu waxul jamais de la vie parce que je considère que c'est du jikkoy jullit lolu lu ma ko mere ñi ma xam-xam nañ ma awus billahi min kalimati ana loin de là mais sincèrement lu ma ko mere mere jàpp naa ne waxta bokk ci sama yar may sosal nit ki lu mu deful jamono bi ñuy wax ak ñoom ci groupe whatsapp bi am na benn sunna soo xam ne wala benn bida boo xam ne man maa ko fi njëkk génnee ci Sénégal mooy booy wax booy tontu nit ki nga teg vocalam ba mu wax ba pare nga couper tontu li nga bëgg tontu tegaat vocal bi kii mais dama daan sàmmanteeg sama bopp jamono jooju du ma daggee waxu nit façon daggin boo xamante ne ça va donner un message bu bokkut ak moom bi mu doon wax. ba tax na léeg-léeg wax ji lu mu gudd gudd je préfère teg wax ji ba mu jeex ma ne leen dégg ngeen li mu wax ma doog a indi sama réponse man bidaa boobu man maa ko njëkk a def ci Sénégal bu dee bidaa bu dee sunna xasanal tamit maa ko njëkk a def voilà ñu bëri après roy nañ ma ci ci ginnaaw gi. man sanna sunnatan xasanatan fa lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmi alqiyamati <laughs> donc waroo mere nit kii ba mu tax nga kii mais tey jii ngay gis koo xamante ne ni dafa wax lu la neexul rek nga dem commencé dugg ci fameem di ko sosal dugg ci dundam di ko sosal dugg ci sëriñam dugg ci ay mbiram lu nekk nga inventé ko te yàlla xam na ne li ngay wax noonu suñ tegoon temps mais à couper doo ko mën a prouver am na yoo xamante ne même soo ko mënee prouver sax sa bañ a ruus ak sa jikko yu rafet moo la koy moo la koy mën a war a tax a bañ a wax <clears throat> am na benn am na benn waxtaankat ci salafiste yi muy nekk ci réseau yi fan yee dafa am problème ak ay affaire jigéen <clears throat> ñu bari doon ci wax ndax dëgg yàlla ñu bari sonal ko ci lool ba am ay jigéen yu duggoon di ñaanal ci benn laay fam naan ko yow dootoo jàngalee teg yu mel noonu mais malgré différence yi ma am ak moom yépp dama axastu ala nafsi al ahda que ne du ma ci prononcé wu en public sama yoon nekku ci digganteem ak boromam la voilà lu ma seq ak moom mooy su waxee ci masalaay xam-xam bu ma ko ci mënee tontu ma tontu ko ci. il faut il faut ñuy jàng jikko yooyu ñun en tant que jullit il faut ñuy jàng ne l'islam d'abord jikko la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne akmalu naasi imaanan ahsanuhum xuluqan ki gën a mat imaan ci nit ñi mooy ki leen gën a rafet jikko nit ki léeg-léeg il faut ngay am looy jombal sa bopp am looy bañal sa bopp <clears throat> sa adversaire quelque que soit férocité adversité bi ngeen am sa diggante ak moom dafa war a am looy jomb dafa war a am looy bañ xoolal ku mel ni Seydina yi par exemple Seydina Ali jàkkaarloo naa nit ci xare di xeex ak moom dem ba war koo rey waa ji ubbi uññi ay awram Seydina Ali wëlbati ko ba tey jii rayut waa ji ko laajee lu tax jekkali woo ko te xam nga ni kii moom mooy bopp jaan gi nga xamante ne mooy problème bi mu ne leen néeg naa rey nit ci état de faiblesse boobu mu tolloon dafay ñëw toroxal doomu aadama te néeg naa ko def. après vous allez comprendre booy xam yu mel ni da ngay comprendre pourquoi naa Ali nga koy boo ko boo ko xamee nga koy bëgg mbëggil ko amul àpp maanaam tiim na nit. tiim na nit ci xare waa ji di ut bakkanam Seydina Ali di ut di défendre boppam ba Seydina Ali daane ko xaj ci war koo rey waa ji xaxtandiku tëfli ko Seydina Ali wane ginnaaw reyul waa ji biñ ko laajee lu tax reyoo ko mu ne leen damaa bañoon rey ko fekk cëru bakkan am na ci man que ne sama ego la laal moo tax wallaahi bañoon naa koo rey ci moment boobu fekk sama ego moo tax ma rey ko mais duwul ngir yàlla wala ngir euh, cos bi ñu boole woon sharaf axlaaq jikko ju rafet makaarimul axlaaq mais tey jii da ngay gis benn waay boo xamante ne il suffit juste nga am ak moom quelque quoi ak voilà lu mu xam ci yow wax ko lu mu xamul sosal ko sosal la ko fu mu fekk ñu yàq sa der moom mooy dugg maa maa lañ ko gën a xam xaaral ma nettali leen <coughs> yàlla nañ ci yàlla musal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa <clears throat> Alors, on continue. mu ne wala mu tam voilà qaayida bi li muy jàngale mooy wax ay maas ci seen diggante euh, laa siyama ida kaanat bayna baynahum nawun min al adaawati aw al ixtilaaf fi l mazhab mu ne du ñu considérer waxu ay maas entre eux surtout bu fekkee seen diggante dafa am adversité bu ci nekk wala ñu am wuute ci wàllu mazhab xam nga lii xam nga lii jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay wuute ci wàllu mazhab yi amul woon maanaam mazahib yi nii di am bay wuutale nit ñi di leen féewale yépp ginnaaw gi la xew et vous allez le voir après ginnaaw gi la xew bien que je pense que je vais censurer les gens de Facebook et de TikTok là pour que ñu wéet am na yoo xamante ne du ma ko wax en public mais mazahib yi wuutale nit ñi lépp ginnaaw gi la xew jamono yonent bi leneen moo daan wuutale nit ñi xëy na mais en tout cas jullit ñi seen biir leneen moo leen daan wutale ay antécédents personnels la ñu am ah, ay problèmes personnels mais tey jii nga ne dangaa am ixtilaaf ak ci mazhab kese ci mazhab ba tax doo julli ci ginnaawam ba tax doo ko may jabar doo takk ci moom ba tax du bu jaayee doo jënd ba tax bu xewlee doo dem loolu féewale jullit ñi la ci anam boo xamante ne amul benn dalil bu koy waral je vous donne exercice bu ngeen mën a def yéen ñi may déglu ñëpp indil leen ma kenn kenn rek kenn laa wax ku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mës a beddi wala mu rejeté ko wala mu dàq ko wala mu génne ko ci diine sous prétexte que waa jooju dafa def bidaa wala dafa def jëf joo xamante ne dañ koo interprété ne shirk la kenn rek waxuma yéeféer bu duggagul ci diine wala waa màkka yi waxuma loolu kenn ku nekkoon ci lislaam di wax ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah def benn bàkkaar wala mu def benn affaire bu ñuy tuddee bidaa mu def benn affaire bu ñu tuddee bidaa indi leen kenn koo xam ne yonent bi mës na ko rejeté ci cause boobu noonu amul maanaam yonent bi sallallahu alayhi nit ki mënti men bu ñëwee ci moom dana ko accepté fexe ba baaxal ko fexe ba baaxal ko waaye tey jii ngay gis nit koo xamante ne da gis sa benn moroomi jullit di def benn bàkkaar bu ndaw wala di def benn jëf joo xam ne yow yaa ngi koy tuddee xëy na bidaa te fekk moom jàppewu ko bidaa nga commencé joxe ay fatwa ci moom waruñoo weet ak moom waruñoo toog ak moom waruñoo jëflante ak moom waruñoo nàngam ak moom dugal nooneel ci diggante nit ñi façon boo xamante ne nii daanaka daanaka sa moroomi jullit bi ngay gën a bañ ko que que que juif bi wala que noon bi nga xamante ne nii chaque jour mu ngi fexe loolu lu mu la faagaagale. te boo delloo ci téere yi da ngay fekk ay musiba ci yu mel noonu. manam ku def nangam nañ ko ray ku def nangam nañ dag bopam ku def nangam nañ ko nangam ku def nangam nañ ko tublo bu tubul ñu ray ko do fekk ko ci jangale yonent bi nit ku def ben masala bo xamantene ni jëf jo xamantene ci masala fiqiya yi la yonent bi nañ ko tublo bu tubul nañ ko ray do ko fekk ci jangale yonent bi bu ngeen ko mëne dem len ngeen gëstu ji ko semaine prochaine ngeen ñëw wax am ngeen chat GPT am ngeen am ngeen Google dem na ngeen gëstu ko en tout cas sama chaise bii sama fauteuil bi balaa ma ciy toog lépp lu ma war a wax damay xool minal alif ilal yaa c'est pourquoi su ma waxee souvent du yomba di dindi xanaa ay saaga rek damay nit di mën a def donc façon boobu tey jii ñu féewalee jullit ñi façon boobu ñu xeebloo jullit bi moromam façon boobu ñu bañ loo jullit bi nit ku baax façon boobu ñu bañ loo jullit bi xormaal dundu doomi aadama ba nga xamante ne jullit ñu bari tey deretu jullit moo gën a oyof ci ñoom deretu yoo maanaam rey yoo nii yoo bu la màtt nga rey ko tuur deretu jullit benn la ci ñoom wala moo gën a oyof et ce sont ces mêmes personnes là ce sont ces mêmes personnes là qui vont venir après di pleurnicher parce que Israël mu ngi rey ay nit ci Palestine et ñoom ñooy joxe ay fatwa yoo xamante ne mais boo ko déggee tu es scandalisé tu es scandalisé benn boroom xam-xam ci ñoom wax na ne sax ku war a julli war a julli biral sa yéene rek nañ la tuuboo boo tuubul nañ dagg sa baat allah catastrophe boobu ba faj ba kañ <coughs> alors <coughs> wal mu'tamadu li nga xamante ne moom lañuy ñuy considérer maanaam sukkandikuwaay bi adamu qabuli kalaamil aqraani baadihim an baad wala fii baad إلا أن يكون مفسرا مبين السبب فحينئذ يجب اعتباره في الحكم وعدم إخفاله <clears throat> لغا خمانتني موم لاني مانا كونسيدير موي اي ماس سونو وخي سين بير نيت كو خمانتني سات موروم لا بغا وخ تي موم ولا موم وخ تي ياو مون لولو كين دوكو نانغو لودول بيغا وخي داغا اندي wax ji mu nekk lu ñu avec des preuves mu ne bu boobaa nag fa xiina isin yajibu itibaaruhu Boba, war nañ ko considérer sa wax ji war nañ ko jël en considération qu'est-ce que cela veut dire moy domi adama dafa baxo ñaari bu maasewee ak nit bu bokki ak nit jamono ñaari firangi mën na am seen digënté manam tey jii ngay gis ñu bëri dañ naan la bëgg nañ sëriñ diiw supposons Baye Niass wala sëriñ Touba wala Sidi Hadji Malick wala Cheikhu Tidiane wala Cheikh Umarul Fouti mais xëy na bu ñu jamono wante woon ak ñoom fiiraange du leen may ñu bëgg leen loolu ci feebaru xol yi la bokk te dafa bokk ci li nit war a xeex boppam wala xeex ak boppam dindi ko ci boppam am na benn wax bu ñuy nettali ci Baye sincèrement bokk na ci wax yi ma gën a neex ci li ma mës a dégg ñu nettali ci Baye bokk na ci yi ma gën a neex mooy dañu wax ne Baye def ne saay bu ma tëddee ci sama lal mën naa nelaw ndax mayu keneen tiitalu ma parce que xam naa li ma am fa yàlla te lu lu yàlla def nit rek neex na ma ndax xam naa ne loolu mooy cëram ca moom loolu maanaam lu ma gis jaam bi mel rek neex na xam naa loolu mooy nammi na ma yàlla ci moom loolu la wax wax ji bokk na ci li ma gën a neex ci li ma mës a dégg ñu ne ci bàyyi yëpp saay bu ma tëddee sama lal mën naa nelaw ndax mayu keneen jaaxalum parce que xam naa li ma am fa yàlla benn te nu ma gis doomi aadama bi men ci lu baax rek gërëm naa parce que xam naa ne loolu mooy nammi nammi yàlla ci moom donc raxas sa xol bi ba doo am mbañeel doo am firange doo am xeebeel doo am frustration ci yàlla def nit am na ñu bari léeg-léeg dañuy critiquer benn sëriñ diw wala benn ustaas diw yàlla xam na ne frustration la rek ak firange bu leen yàlla tegoon fi mu teg kooku noonu duñ ko critiquer di te loolu malheureusement dafay feeñ ci suñu réew yi ba ci mbiru àdduna yi sax da ngay gis koo xamante ne nit ki day nekk président léegi wala day nekk ministre wala day nekk nangam neexula rek yow chaque jour tu déverses ta colère sur lui suba suba bu ñu la faloon wala ñu fal sa mbokk ci place boobu nga bàyyi di ko critiquer même s'il fait les mêmes choses que li kooku di def. loolu dafa baaxoo ci ay maas moo tax ñu ne. nit ñoo xamante ne ay masse lañu bu ñu waxee bu kenn waxee ci moromam wax jooju des koy prendre avec des pincettes misaaluhu misaalam Seydi xam naa lii dina dina la intéresser parce que on en a parlé un jour misaalam mooy kalaamu imam malik waxu imam malik rahimahullah fi muhammad ibnu ishaq ibnu yasar muhammad ibnu ishaq ibnu yasar mooy muhammad ibnu ishaq bi ngeen xam Moussa yaa ngi fi Ici yaa ah, Seydi borom sirra wax ñu wax ñu loo xam ci moom. Mouhamed moom mooy borom sirra. Mhm. Euh, sirra bu mu bind bon livre bi à la base Ibn Hisham moo ko dajale woon mais après Ibn Ishaq moo ci jël liggéeyaat ko. Mhm. d'ailleurs version moom lay yor ba léegi. Mhm. Euh, daanaka toutes les livres yoo xam ne day wax ci sirra yonent bi sallallahu alayhi daanaka à quatre vingt dix pour cent ci travaux Ibn Ishaq lay basé wu. Mhm. moom nag bon instant yi nii moom bon ci jamono yi nii euh, borom xam-xam yëpp nangul nañ ko mais ci jamonoom borom xam yu bëri yu mu doon dundal dañ ko doon jam notamment ku mel ni Imam Malik. Mhm. Euh, dégg naa sax participé na ci pour ñu génnee ko Médina parce que dafa waxoon ne Ibn Ishaq bi euh, dajaal la parmi les dajaal. Mhm. et pourquoi wax wax boobu parce que Ibn Ishaq. mooy comme sànq lu doon jàng rek des a da doon wax naan ani euh, maanaam d'après un siqa mm-hmm. te suñ defee enquête suñ insisté laaj ko siqa on se retrouve que siqa boobu mënu wax du sax jullit mais ab yahud la mm-hmm. buy liggéey ci marché bi mm-hmm. ak yeneen affaire yoo xam tamit ay nit yu ci jamonoom tamit euh, jam nañ ko ko mais bon léegi nag est-ce que instant moom soo laajtee daanaka euh, borom xam yu bëri duñ gis problème ci moom mais soo ko xoolee d'ailleurs par exemple Ibn Hajar euh, bu muy classé kii nii euh, différents niveaux de euh, maanaam différents niveaux de siqa yu en fait différents niveaux yu siqa yi am je pense lui il a mis en quatrième position. Mm-hmm. donc un mooy ku gën a nekk siqa deux trois je pense Ibn Hajar ci quatrième bi la ko boole. Mm-hmm. c'est-à-dire parmi les moins moins en tout cas ñoo xam ne ils sont moins moins siqa. donc nekkoon ci un deux trois niveau quatre bi la ko Ibn Hajar yóbbu yóbbu loolu daal en résumé loolu laa xam ci moom. macha allah jërëjëf alors <clears throat> Mouhamed Ibn Ishaq Ibn Yasaar xam naa ne yéen ñu bari dégg ngeen turam képp kuy jàng téere ci siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, surtout ci suñu jamono ji am na relation ak Ibn Ishaq de près ou de loin. Euh, ginnaaw ginnaaw téereem boobu nag après Ibnu Hisham ñëw na am na na liggéey bu mu ci def moom tamit. ba nga xamanteni ne tey jii son livre fait partie des œuvres de base mais euh, balaa may ñëw ci waxam digganteem ak imam Malik dafa am problème bu bu bu bu doy waar boo xam ne jullit ñu bëri xamuñ ko ci moom. li may wax ni c'est pas pour critiquer Ibnu Ishaq wala pour critiquer qui que ce soit mooy Ibnu Ishaq ci cosaan dañ doon wax ne c'était un juif dañ doon wax ne c'était un juif buñu ñu bu coupé live Facebook bi ak bu TikTok bi ngeen laaj ma ci sama xalaat ma jox leen sama position personnelle mais je le dirai pas en public <coughs> ngeen fàttali ma ko incha allah dañ doon wax ne c'était un juif en plus de cela daf daan jëlee ci ay juif ay yahud maanaam et loolu bokk na ci li tax loolu bokk na ci li tax téere ibnu ishaq bi dafa am ay problème yu bare bari ci walu sirawu alayhi wa sallam problème yooyu comme genre maanaam yi ne yonent bi def nga nit normal nit normal daf koy def nit normal daf koy ça pose la ça pose ça pose une question de savoir est-ce que duwut ne

man nee naa la benn waay bu ma wóolu gis ngeen wax ji ni ma wax nii c'est pas quelque chose de grave kaaba gi ci biir ay ordinateur yoo xam ne dañ ko infiltrer ay virus ñoom ñoo ci nekk. mbokk yi nekk ci TikTok bi application bi mu ne ngeen tapoté live bi balaa muy dagg bu fekkee da ngeen bëgg mu dagg itam amul problème man je vais continuer avec mes élèves xam ngeen li ngeen war a def man maa ngi def li ma war a def que chacun fasse son travail merci ñëw ne la. benn waaye bu ma wóolu wax na ma te fekk waa jooju mooy Benjamin Netanyahu premier ministre Israël bi est-ce que jàpp ngeen ne premier ministre Israël bi dina ma wax ci kaaba gi lu baax est-ce que jàpp ngeen ne Benigvir wala Smotrich danañ ma wax ci kaaba gi lu baax vous voyez un peu donc Ibnu Ishaq da daan def lu mel noonu ñëw rek ne benn waaye bu bu wóolu wax na ma daal di nettali benn wax joo xamante ne askan nañ ko yonent bi te fekk wax jooju ci juif yi la ko jëlee. loolu mooy problème premier problème Ibn Ishaq <clears throat> ñaareelu problème bi te man je considère que c' est beaucoup plus grave sax c' est beaucoup plus grave <clears throat> parce que boo amee euh, xam-xam tuuti ci israéliyaat ak dundu yonent bi di nga mën a déceler de vrai le vrai de l'ivraie ci lan la yonent bi war a def ak lan la yàlla wut pour mu def ko mais problème bi gën a grave mooy. Euh, bi mu bindee livre bi dafa am benn buur boo xamante ne nii daf ko ko yóbbul du ma tudd kan la bu ñu bu ñu coupé live Facebook bi ak TikTok bi ngeen laaj ma ko ma wax leen ko xaaram bind tur bi nii mooy kii may bind turam daf ko yóbbul buur bii nii ndax xam ngeen Ibnu Ishaq mu ngi Ibn Ishaq décédé l'an 151 de l'Égypte alors bi mu ko yóbbulee buur bi buur bi dafa xool livre bi ne ko ah gisuma ci bon bàyyi leen ma censuré lii suñu coupé live bi ma nettali leen digganteem ak buur bi li ci xew naka noonu Ibn mi ak ci mais je euh, ma ngeen fàttali coupé live ce qui a fait que revoir na lu baree bari ci vers ci narration bi mu joxe woon ci biir a bi am ñu mu tuutaloon mu après am na ñu mu yëkkati woon wala ñu histoire yëkkati mu bon. xaaral ma yem kii fii balaa gars yi di wax naan dama nekk ab salafiste bu bëgg a critiquer gàmmu parce que comme Sénégal ñu bëgg léegi bu ñuy gàmmu siratu muy sànq la ñuy liir boo fi waxee tam ñu ne da ngaa bëgg a jam téere bi gars yi di sukkandikoo ci gàmmu <laughs> jamuma dara voilà li ma wax nii ku ko gëstu xam ko Ibnu Ishaq mu ngi juddu l'an 80 de légir mu ngi décédé l'an 151 de légir voilà et malheureusement malheureusement jullit ñu bari tey moom mooy seen source ci siirawu yonent te problème yu bari dugg na ci yu ma mën a wax ak yu ma mënta wax yenn ay wasagu jàngkat la donc digganteem ak imaam Malik on ferme la parenthèse on revient digganteem ak imaam Malik imaam Malik wax na ci ibnu Ishaq nee na dajjaalun min ad-dajaaji la nee na ibnu Ishaq dajjaal la ci dajjaal yi maanaam kenn la ci seytaane yi gën a mag ci iblis yi. te pourtant moom ak imam Malik ay maas lañu maanaam ay génération lañu fekkante nañu gisante nañu xamante nañu problème bi mooy borom xam-xam yi dañ naan la wax ju mel nii bu ko considéré parce que ay waxu maas la mais li ma leen wax sànq ci paragraphe bu Ibn Abdul Bari bële bu fekkee ne ay waxu maas du ko considéré mais y aura un problème parce que kii wax de deux choses l'une soit li mu wax dëgg la dans ce cas sa parole mérite d'être euh, prise en compte soit limu wax du dëgg mooy ne nit kooku noonu il doit être démis de ses de son honorabilité parce que bu fekkee il est capable de mentir sur son prochain pour des pour pour x et y raison mais kooku méritetul ñu am ñu jox ñu jox ko benn respect n'est-ce pas léegi imam Malik li mu wax nii ci ibnu Ishaq ibnu Ishaq dajjal la de deux choses l'une soit ibnu Ishaq dajjal la comme ni ko imam Malik waxee imam Malik ku dëggu la soit ibnu Ishaq du dajjal mooy ne imam Malik sosal na ko bu imam malik imam malik il est capable sosal ibnu ishaq imam malik il doit être démis de son honorabilité est-ce que vous comprendre li ma bëgg man masamba ma ne masamba mi dajjal la li ma wax ci moom dëgg la te man ma honorable fiable dañoo masamba comme bu dee li ma wax du dëgg mooy man waratuñ maa considérer comme ku honorable wala comme ku fiable parce que je suis capable ma sosal doomi aadama taqal ko loo xam ne defu ko amul ñetteel amul ñetteel maanaam amul nooy mën a dëppalee wax ji ba ne da ngay dédouane Imam Malik dédouane Ibnu Ishaq à la fois à moins qu'on veuille être l' avocat du diable et malheureusement c' est ce que yenn borom xam-xam yi du ñu def ñëw bëgg a nekk l' avocat du diable dédouane Ibnu Ishaq dédouane Imam Malik aussi. mais de deux choses l'une soit ibnu ishaq mo nek ci deug soit imam malik mo nek ci deug et kenn ku ci nek ci deug ci ñom ñaar kenen ki wax ji dafa am luy toftalu ci kaw ci kaw d'accord alors وقيل إنه كذبه لما طعن في نسبه أها c'est là où ça devient intéressant ñu ne imam malik dafa fenloo ibnu ishaq maanaam dafa taxe imam ibnu ishaq da fenkat moment bi nga xamee ni ibnu ishaq dafa jam imam malik ci nasabam aha mhm. nañu ko def entre bu ñu coupé live yi ngeen fàttali ma ko ma wax leen ci lan la lan moo xewoon ak lan la waxoon imam malik duma ko wax mu duma ko wax en public te ñu ne man maa ko bëgg kii en tout cas yàlla xam doy na qaala alxaafizu zahabi fi siyar imaamu zahabi wax na ci siyaru alaami nubala ci volume 8 ci page 71 mu ne روي عن ابن عن ابن اسحاق انه زعم ان مالكا بون لي واخو ليرال كي دونك نان باي بما با نيو كوبيكو بما لين bu ma leen censuré ba pare dinaa expliquer lii nii nañ ko tëj dafay jokk ci wàllu nasab bi moo tax wa min zalika aydan kalam ibn abi kalam abi abdillah ibn manda manam ibn manda mom tamit dafa wax ci abu nuaym al asfahani abu nuaym al asfahani mom moy borom hilyatul awliya bi ngeen xam ak taarixu asfahan ibnu manda maasam la woon dafa wax ci moom ay wax yu ñaaw a ñaaw zahab yi toxal na wax yi ci seeru alaami nu bala ci volume 17 ci page 462 mu ne qaala qad kaana abu abdullah ibnu manda yaqzacu fi abi nuaymin لمكان الاعتقاد المتنازع فيه بين الحنابلة وأصحاب أبي الحسن سي انتريسان من ابن مندى ابن مندى da doon jam Abu Nuaym ngir wuute bi am ci seen diggante ci wàllu pas-pas te mu juddoo ci wuute bi nekk diggante xanaabila yi ak ashariya yi maanaam gis nga boo comprendre lii tu comprends quatre-vingt pour cent ci problème wu l'islam yi jullit ñi di dund tey pour cent tu le comprends bon pour ne pas pour parce qu'il y a d'autres 30% qui sont dus à beaucoup de choses mais boo comprendrez lii wuute bi am diggante xanaabila yi ak génération yi ci top mo xam muy acha achaira Maturidi maturidiya yeeg tu comprends 70% du problème de l'islam pourquoi waxon naa ko ci benn émission bu ma defoon DTV je crois ñu bari doon ma ci dal mais bima koy wax je l'ai dit je l'ai dit en connaissance de cause imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah bi mu duggee ba génn sa position a varié diamétralement ses fatwas sont devenus beaucoup plus durs, beaucoup plus radicales et loolu loolu bokk na ci njeexital bi mu am mooy bopp julit ñi lii je le dis et je prends toutes mes responsabilités je pèse bien mes mots surtout ci masala xalqul quran ak yeneen yi ci topp ramification yi ci am loolu tax na ñuy yéefirloo nit di dagg di dagg bopp nit di tuur deretu nit di tas sëyu nit di jël alalu nit ak yu kenn xamul maanaam ñu baree bari tawsiix nañu leen tout simplement parce qu'ils étaient du même éco de la même école ñu baree bari tadif nañu leen tout simplement parce qu'ils n'étaient pas de la même idéologie c'est tout c'est tout et on voit ba léegi nii ba suñu jonne yàlla te on voit des gens yoo xamante ne dañuy taxaw ci seen kaw bi mbag di séddale tiketu aljana ak tikewu safara kii safara la jëm kii aljana la jëm boo ko laajee lu tax mu ne parce que nitu bidaa la alors que bidaa bi yow yaa ko définir yow bidaa bi yow sa sa conception la sa concept la tu crées un concept tu crées une définition tu prends des étiquettes tu les colles sur des gens et après en conséquence de quoi nga yóbbu leen safara ci loolu yéefeeg loo leen ci loolu génnee leen ci dina ci loolu من ونال أبو نعيم أيضا من أبي عبد الله بن مندى في تاريخه أبو نعيم من تمي إسي بالي سيفر إسي أتاكي ابن مندى في تاريخ أصفهان من وقد عرف وهن كلام الأقران المتنافسين بعدهم في بعد من وهي أن كون ديجا دوية دي جيغا خمانتني وخو أي ماس يوي وخ تأم أي أنتسيدان سين ديغنتي لر بارول نكونت با مي في تمت لما وخون سانقلاي وخ quel que soit wax ju ñu mënta wax seen diggante de deux choses l'une soit wax ji dëgg la soit wax ji lu dëgg bu dee wax ji dëgg la ça doit être pris en compte et en considération bu dee wax ji du dëgg ki wax wax ji dañ ko war a démettre de de son honorabilité c'est tout man nii laa ci jàpp wax dëgg yàlla parce que mënumaa gëm que ne nit ñaari borom xam-xam toog ñu ne ay jikko yu rafet lañu am ba pare ñuy waxante ay wax yu ñaaw seen diggante ba pare ñu nañ fàttee wax ju ñaaw jooju noonu ak sosalante yooyu ñu jàppee leen comme ay borom xam-xam man jàng naa Baye Niass man mosumaa gis Baye Niass am problème ak nit te je sais amoon na ay problème ak ay nit mais mosuma koo gis mu jéggi ba wax leen lu mu leen war wax wala mu sosal leen jamais de la vie il défendait ses positions avec ses arguments gëm nga ko gëmoo ko baax na. jàng naa Serigne Touba tuuti am na lu jot a xam ci moom mais mosuma gis Serigne Touba wuute am ak moom ci diggante ba ci Touba bi Serigne Touba su solu leen waxu leen wax ju ñaaw et pourquoi alors les soi-disant borom xam-xamu hadis quand ils se claquent quand ils s'insultent ñu ne noonu nañ jël insulte yooyu ñu tegee ko de côté ñu jàppee leen ne ñoom ñaar ñëpp ñu baax lañ non li ngeen war a jàpp mooy foo gis ñaari nit ñuy sosalante. am na ku ci wax dëgg am na ku ci waxul dëgg wala ñoom ñaañu waxuñu dëgg wala ñoom ñaañu dëgg la ñu wax léegi nag bu dee wax ji dëgg la dañ ko jël buñ ko jàppee rek ay waxu nit ñoo xamante ne dañoo général général euh, bokk génération bu dee wax ji du dëgg ka wax wax jooju noonu nañ ko jàppee désormais et dorénavant comme kuy sosal nit di wax ci moom lu dul dëgg ñu placé ko fi ñuy placé ñu mel noonu oyofal yu mel nii moom mooy waral tey jullit ñi di permettre seen bopp. toog ci seen deru morom di ci wax lu leen neex te buñ paree dem jiite ji ci jumaa ji maanaam dañu war a sévère ci yu mel nii war a jàngal nit ki ne pour une parole mal placée ci sa morom tu peux être déchu de ta de ton honorabilité kenn dootu la considérer ci communauté bi jikko yu mel nii suñ ko doon inculqué doomu jullit bi dina jomba fen dina jomba sos dina jomba trahir sa parole dina jomba yàq moroomi doomi aadama dina jomba tok di kaa nit ñi pour yàq seen àdduna te on voit on voit tey jii répercussions ak conséquences yi malheureusement ñaata nit la yàq seen àdduna sous des prétextes qui sont totalement inventés Tok nañ rek kaa ko inventé ko ku nekk wax ci ba nit ki xajatul ci société bi ñaata nit la dal du xaaj du ñaata nit lañu indexé wax leen wala ñu sosal leen loo xamante ne jaral na jaral leen sax ñu génn ci dëkk bañ nekkoon te ñiy wax loolu après ñoom ñooy jiitu ci jullit ji ñoom la ñuy oowee ajaratu wala ajaa ñoom la ñuy oowee alaaji wala sëriñ bi wala imam bi non on doit être sévère avec ces genre de trucs là je pense que je vais <coughs> je vais couper les lives et je vais continuer avec mes élèves incha allah ñi nga xamante ne jàng mi intéressé na leen j'ai donné le numéro. si ça vous intéresse vous pouvez vous inscrire ñu continuer prochain prochain cours ñu dem ak yéen incha allah bu fekkee intéressé wu leen vous pouvez rester ici chaque jour ñu may leen quelques minutes de live yaakaar naa tey ci guddi peut-être dinañ def live incha allah live habituel bi ñuy def hebdomadairement incha allahu taala numéro bi c'est 77 104 14 10 77 104 14 10. 77 104 14 10 77 104 14 10 vous message whatsapp dinaa leen revenir et ne soyez pas trop exigeant bu ngeen bu réponse Inch'Allah. à ce soir Inch'Allah, live euh, round up ci actualité ak euh, question réponse donc si ñi am ay questions xam Facebook TikTok préparez vous ce soir on se capte merci et merci d'être là prenez soin de vous